الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والشكر لرب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صل على سيدنا ولينا حدوتنا حبيبنا شفيعنا وآله وسلم مبكي جلتي مبكي تالوبي مبولم تلسبكتاتر ليرال téléspectateur u ñoo ngi ci siwaat di am mbégte bu baax a baax cant ci sunu borom subhanahu wa taala di leen nuyu nuyu l'islam biñu nyep, bokk ñun ñëpp muy nuyu tahiyatan min hindillahi mubarakatan tayyiba di leen wax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ñoo ngi nuyu mbolem réew mi yëpp nak di nuyu wa kër gi nga xamantani moy wa leral tv nga xam ne alxamis ju jot ci waxtu wi la ñuy am tawféexu di janoo ak yéen ci seen jotaayu xam-xam ak taalube muy seen émission bi ngeen miin di ci baaxoo ànd ak seeni ñaari mbokki taalube seeni ñaari mbokki jullit alxaaji Boubacar konaate moom Serigne Béthio ak Serigne Saliou Samb moom Serigne Béthio ñu ngi nuyu mbooleem kër gi nag tàmbalee ko ci alxaaji biraahim Touré le directeur waaye wacc ba ci mbollem équipe bi yépp ñi nga xamni ñoo seq liggéey bi ngank ko ba tax sa suné ñuy am ak jappanal ngir di mëna wax ngeen ñuy dégg waaye ngir ngeen ñuy mëna sétane di ci indi seen ay xalaat ak seen ay gis-gis ñoo ngi leen di bégee ñoo ngi nuy bu baax actuellement ni ñi nga xamni ñoo nekk ci régie bi muy ñom mohammed ñom alune Badara ñom ak mbollem seen équipe régie bi yépp ñom saxo cameraman monteur technicien de son ainsi de suite Yalla neen yalla dolli wér mbokk yi kon ñu am mbégte bu baax a baax ci dellu siwaat tey ci jotay bi <coughs> Jukéti nak benn thème bo xamni sa suné dañ koy waxtaan ak yeen té sa suné muy jur njariñ té ñu ci am des retours très très positifs Waye itam ñoo ngi bëggee mbokk yi nga xamni ñoy and ak ñun sur les plateformes en ligne lu ci melni Facebook bi waye lu ci melni euh YouTube bi ñepp ñoo ngi leen di nuyu bu baax mboolem soppey jotaayu xam-xam tay nak gis ngeen tam bi ñu leen andil na Alioune Badara danoonu ko officiel mu leer naññ muy lan muy Serigne Touba lettre multidimensionnelle ça vient en continuité de l'exposé qu'on avait fait la dernière fois sur euh, euh, Serigne Touba lettre multidimensionnelle bi continuité les doon

Moi, les différentes facettes de Serigne Touba ou encore Serigne Touba l'être multidimensionnel bu ñu lettre l'être multidimensionnel nag mooy kon Serigne mi dafa feeñal ay melokaan yu bokul. dafa feeñal ay wet yu bokul. dafa feeñal kon ay manazil mooy way moy ay melo ay jawaanib Té lolu nak limi indi saa su moy day tegtale ak magam. ça ne fait que confirmer sa grandeur et sa dimension spirituelle incommensurable Moi, ak màggam rek lay firi loolu it suñu ko waxee ci Serigne Touba képp ku jàng diine te jàngantuwoo ko <coughs> di nga xam ni ay Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam noni la ñu ko yàlla présenté ci Alcoran. moy defal nuko ay jawanib defal nuko ay manazil moy ay facette ndax le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam aussi c'est l'être multidimensionnel kon bu Serigne Touba ne ma donn mbiram arfin bi arfin wax ni nasafatuhu kulli min al-lahwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayanu ak lil mustafa nawaitu ma yu jaddidu sunnatahu al-gharra wa inni ahmadu wax ni dama donn yonent bi fi zahirin wa batinin fi kulli fannin kon bu yonent bi alxuraan présenté ñu ko ci ay jawaanib ay manazil ay dimension ay facettes sëriñ Touba <clears throat> ci biir mbindam mu confirmer loolu ci ci yonent bi waaye moom ci boppam ci ay waxam moom Ahmadou muy wax ci ay dimension ay jawaanib yu bokkul loolu kon dañuy dañuy xam ne da koo da koo royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na nag ci loolu li muy jur mooy mbiram day yaatu loolu mo waral tous les mourides ne parlent pas le même langage dina la andil tay ci Serigne Touba ngeen ka néew juróomi dimension yo xamné ne benn bokkul ak sa morom té Serigne Touba daf ci wax ak jaamu yalla yi cinq facettes cinq niveaux cinq étapes yo xamantani bo yéré yëree mbindum Serigne Touba Serigne Touba nakoy waxé ci bopam lég lég ki taxaw ci première étape ak ki taxaw ci deuxième étape ba ci cinquième étape suñu xamul ni Serigne bi yaatoo lég lég duñu déggante tem la boo xam ni képp koo xamante ni maîtriser goo ko ci Serigne Touba léeg-léeg muccagoo ci weranteeg ab murit ni yow moo tax fi mu toll nii di nga gis ñoo xam ni sax seenub liggéey saa su ne mooy weddi seen mbokkum taalibe wala seenub liggéey saa su ne mooy di tenir des débats contradictoires ak ñoo xam ne ñoo bokk benn pas-pas ñu di murit waaye lool nag li muy firi rek mooy ku tedd ki moo yaatu moom day kéemaan ndax dañu woon kulliyat yi mu'jizatun ta'aqqarat wa xayri xayraatin la day ko du xiram loolu nag Serigne Touba ko roy yonent bi waxoon naa la fii ci leeral TV ne la Serigne bi génneel nañu juróom-ñaari Muhammad ci alxuraan juróom-ñaari Muhammad yooyu képp koo xam ni mokkalagoo ko ci alxuraan mën ngaa jàngal nit yonent bi réeral ko ndax yonent bi alxuraan indil nañu juróom-ñaari Muhammad ci benn téere ci jenn jëmm waxtaane naa ko ba tàyyi diggante Muhammadun euh, Muhammad Muhammadun Abdullahi muy Muhammad al insaniya ba ci muhammadu nuurullaahi mooy muhammad mii leer yàlla am na ay muhammad yu dox ci diggante bi waxoon naa la muhammadun muhammad al insaniya muhammadun abdullahi alxuraan léeg-léeg mu àndil ñu muhammadun muhammad ibn abdallah muhammad ibn abdallah muhammadun abdullahi muhammadun nabiyullah muhammadun rasulullah muhammadun wasilatullah muhammadun sirrullah ak muhammadun nuurullah diggante Muhammad al insaniya mooy Muhammad mi nekk nit juddu at sàngam faatu at sàngam am ndey am baay am ay doom di juum ñu koy jubbanti alxuraan di wàcc naan ko wajadaka daalan fa hëdee wa wajadaka ailan fa ahnaa alam yajidika yatiman fa aawaa kon Muhammad moomu nit la jirim la kuréer la ku ni dimbali la kuy juum la moo tax mu naan innama anaa basarum mislukum nit laan yiin wetam googu muy fasetam boobu am na beneen facette boo xam ni boo fa taxawee Muhammad du kuy juum te du nit ndax moo tax ñu sàkk nit nit ki njëkk juddu mooy aadama aadama moomu njëkk doon nit ñi ngi ko sàkkee ci yonent bi kon booba yonent bi melokaanam boobu ak dimension boobu weesu na dimension nit Sëriñ Tuubaa nee na dimension boobu nag mooy xaqiiqaam yàlla feeñalal nañu ko ci biir alxuraan ci suratu naj mi moo tax daam di wax ni <coughs> maqamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muhayyabatun fal taqra an suratan naj bi xaqiqaam jooju nag muy digg muhammadu nuurullaahi gi boo ko bëggee dégg rombal saar yëpp rombal wadduha romb saar yëpp da ngay dem ba ca naj mi alxuraan di wax ni wa naj mi isa xawa ma dalla saaxibukum wa ma xawa yàlla kat mi ngi xam le ni seen àndandoo bii di yonent bi mësta réer boo demee ci wadduxaa daf laa waxoon ni wa wajadakat daal lan fa hëdee yonent bi da ngaa réeroon maa la gindi nga dem ci naj mi mu ne saxaba yi maa dalla saaxibukum wa maa xawaa seen àndandoo bi mësta réer alors mus ngaa réer mësoo réer te ñaar yëpp yàlla moo ko wax te ci yonent bi salaay salaam la ko jëmale kon boo xamul ni am na Muhammad al insaniya Muhammad mii nit feeñ ci nit diiruk 63 ans mu feeñ ci nit ñi mel ni nit ñi di lekkandoog ñoom di naanandoog ñoom ak Muhammad mi nga xam ne moo tax ñu sàkk nit ñi moo tax nit ñi di am dépense moo xam jan moo tax jant bi di ñu tiim moo tax yàlla sàkk asamaan moo tax yàlla sàkk suuf lépp ay njariñama ay xéewala ma yàlla ak ñu sàkkee ci moom xéewale ñu ci moom diggante ñaari Muhammad yooyu ay kiiraay da cee dox te mooy feeñ gi mu feeñ ci jëmmi nit Muhammad mii juum ak mi dul juum ce sont deux propos qui semblent être contradictoires wa wajadaka daalan fa hëdee ak maa dalla saahibukum wa wajadnaka daalan fa xëddee da ngaa réeroon mala la gindi maa dala saaxibukum maa xaw a mosoo réer ci lu feeñ mosoo réer ci lu nëbbu ñaar yooyu boo ko bëggee firi nooy def kon dangay xam ni yonent bi ay jawaanib la am na aaya yoo xam ne su jógee ci Muhammad mii nit rek lay waxal habasa wa tawalle habasa wa tawalle ki nga xam ni ñagasal na kanam ngir am ñaari gan yu tollowul daraja ci wàllu àddina mu recevoir notable yi bàyyi Abdullahi ibnu Umm Maktum ba alxuraan wàcc di ko soññ ndekete booba yàlla ñun lay jàngal ñun nit ñi waaye yonent bi xam na loolu bu yàgg kon njuumteem nga sax du ak matadi ak mat la ngir day jàngal ñu matadi sooy jàngal ñu matadi da ngay def jëfi ku matadi ñu lay jubbanti ngir ña bu ñu bëggatee juum wala bu ñu juumee xam nu ñuy gàgganti waaye bu fi feeñaloon ak mat mësta mësta juum ba ñu koy jubbanti kon ñun suñ juumee du ñu xam fu ñuy gàgganti ko moo tax njuumteem lam daan juum du ak matadi ak mat la alxuraan dem na ba ñu ni kooku moom du wax ci bakkanu boppam mësta réer Muhammad mi mi réer mooy ki feeñ ci nit waaye Muhammad mi mësta réer mooy ki nga xam ne moo tax ñu sàkk nit jawaanib yooyu nag nga xam ne Serigne Touba noonu la koy toppee ci biir alxuraan <coughs> ci xasidaa mi wet gu ne tàgg na fa yonent bi léegi léeg mu ne falaa taqiisu ibna abdallahi bil fudala innal kawaakiba yux fiha sinnimaar boobu mi ngi wax ci Muhammad abdullahi ah muhammadun ibna abdallah mooy ki nu jur léeg-léeg mu ne laxat maana man sa sannal muqaffa muhammadu yuxaaki walidan xatmadaa aw sa yuladu léeg-léeg mu ne bu leen jaawale doomi abdallahi gi ci biir ngëneel yi léeg-léeg mu ne ku njort ni yonent bi kuy jur la wala ku jur la sëriñ tubaa nee na sa xam-xam këtt na laxat maana giiñ naa ni juum na giiñ naa ni xam-xamam gàtt na kan la xam-xamam gàtt mu ne man képp koo xam ne zannal mu xafa muhammadu njortu na ni yonent bi ki yoxaaki xat xatmada aw sa yuulado ku jàpp ni kuy ku ku kuy jur la wala ku nu jur la moom yonent bi Serigne Touba nee na sa xam-xam gàtt na kon boobu mi ngi wax ak yow ci muhammadu nuurullahi loolu tax léeg-léeg mu tagge ko nuurun azimun qad yara bihi qusuura xaysara man kaana fi ummil xura makkata xayrul xurumi ahmaduna al muxtaari نور الناس بوبو تي نورانيه لاي واخك يوننتي بي ليك ليك موي واخك موم تي انسانيه ولم يكم متهما ولم يكم مكل سما بل فاخ كل من سما من منتمن لادم كان يطول كل من ما شاء في كل زمن وكان واسعا الغتن يضحك بالتبسم وهو جليل قلب بياده مشرب بغمرة وأهدب وأنجل زور سمي يفتر في أسنى ابتسام كالبره أو حب الخمام wadaxkuhu yajlu salaam kasuru jin fii zulami daama ngi noonu ni alxuraan catégorisé yonent bi noonu la Serigne Touba catégorisé yonent bi ci ay mbindam ndax moo ko xamee moo tax ndax nee na yonent bi ñaari xam-xam la bi ngay jàng ak bi la yàlla defal bi ngay jàng nag mooy siire ñépp ko xam waaye boolu mooy xoolu mii waaye xirfaan ba nag mooy ma maxarifa yàlla la koy xamal nee na yàlla mi nga xam ni moom rek a xam yonent bi nee na yàlla moo ma ko xamal te dafa jox mission ma di ko jàngale moo tax léeg-léeg mu taggee ko ci nabiyullah yaa rabbana salli ala xayri nabiyin ak nubuwatahu nubuwatahu baraya xaddin jalat lahu sabhu aynal jaddu fi tiini yoxzanu dégg nga ci nabi rek lay wax léeg mu taggee ko ci rasulu dégg nga léeg mu ne ko eh, yaa rabbana salli waaye xayri rasulin léegi léeg mu tagge ko ci wasi wasilatullah mooy yonent bi sëriñ bu mat sëriñ dégg nga wala to man fimti daa yi wasilati ak muhammadun wasilati wa junnati dégg nga kon wasilatullah catégorie la wet la ci yonent bi am na ñu ko fa gëmee léeg-léeg mu tagge ko sirrullahi dégg nga af ah, dégg nga mu naan dégg nga mu naan arraytani sirra rasulullahi صلى الله عليه وسلم أريتني سر رسول الله فقلت لا إله إلا الله سكرب يننتبه نينا سن بروم وان نمكو موي حقيقام جي دغ دغ تي لا خامني دغ دغ يوننتي بي لاي تيوسانام برينسيبم ليرك يالا يريدون ان يطفي نور الله بافواههم غوغ القران دون ويا بالله الا ان يتم نوره ولو كره الكافرون

dégg nga arraytani sirra rasul rasulallahi waaye léeg-léeg Serigne Touba tagge ko ci nuuraaniya mooy Muhammad nuurullahi wax naa ko léegi nabiyullah wasilatullah kon lool lu ma lay jàngal kon Serigne bi yaatu gi mu yaatu kon bul jàpp ni luñ sos la mbaa lu ñu créé la déedéet loo xamante ni sunna la da ko war a yent bi kon fu mu xamee xet gi kon Cheikh fu fu mu xamee xet gi xam nga ni kon bu ñu lay wax ni ñeenti fan weeru koor la ñëw ci Serigne ñaar fekk fukkeelu fan ba mu jaayanteeg moom <coughs> xam nga loolu àddina la waaye boo xamee dëgg mbirum yàlla da nga xam ni Cheikh Ibra fi mu dajeeg Serigne Touba du àddina ndax koo xam ni mosoo koo gis ba pare di ko wër benn ñaareel ba mooy nit ku jóge ci moom nga nga xool ko xàmmee ko xàmmee xetam xam ni kii xetu ki ngay seet moom lay xeeñ kon am na fu ngeen xamee woon ba nga xàmmee xetam kon xamante wu ñu kaw suuf loolu lay jàngale Cheikh moo moomu amee ca xam-xam bu doy sëkk nag moom moo ne la ku tedd ki dafa mel ni guy nee na ab taalibe mel ni si ndax nee na si ndax nag fa mu takk ca guy rek foofu rek la ca xam looloo tax léegi léegi nag fa ngay takk ak sa moroom fa muy takk dadul doon benn moo tax débat bi day xumb lool nga gis léegi ñu catégoriser murit yi Serigne Touba nag wax gi muy wax ci ay jawaanib yu bokkul ay dimension yu bokkul loolu saa a fait de nous des catégories am na murit boo xam ni wet gim gëme Serigne Touba mooy Serigne Touba Ahmadou Bamba mooy Ahmadou Bamba Mbacke doomi Mamor Mamor Anta Sali ak Soxna Jaara su sunu maam ju baax ja moom foofu la gëme Serigne Touba Serigne Touba yi léppam waaye Serigne Touba mii Ahmadou Bamba la gëm Ahmadou Bamba mooy ki bind Sindiidi mooy ki bind Sindiidi <clears throat> euh, naan yàlla wa moo bindi Toxfatu moo bind Matlabu Chifa yi naan yàlla wax wax fil li واغفر لجميع أهلي وجملة ثقابي يا سميع واغفر لكل ذي تعلق بيا وحققا تعلق بيا وحققا سعادتي يا ربي يا يعني أحمد بامبا مو بند سنديدي مونان يالا واحفظ لي الجسم قيس روح فارخني مونان يالا وكن نسيري أنيسي حينما دفنوا جسمي فسرت وحيدا شم يالاو laa mu man na maxi maa xat yu rawweexu nii balik fiyan kulla ma naxtaaru yàlla Ahmadou Bamba moo bind si mooy ñaan yàlla nanga ko nit laa bis bu may faatu bu mu metti wajaxal xayaati wa mamaati fi sunan man Ahmadou Bamba na def sama dund ak sama dee na na naa ko jeexal ci sunna wajaxal lisaani waxal bi zaakirey kamahan na nga def bis bu may faatu sama làmmiñ bii na am kàttanu di la tudd yow yàlla waye sama xol bi na am katanu dila fatali ko ak di tudd ci sama bir xol sama xol na lay yow yalla bis bu may na lay na lay na lay dund na lay bis bu ma tollee ci faatu ahmad Bamba mo nan yalla bammel dafa xat wa kun nasiri nang ma fa dimbali yalla bammel dafa xat wa kun anisi nang ma fa wéttali ahmad Bamba wax lolu am murid bo xamni Serigne Touba léppam waye ahmad Bamba la gem gis nga murid bi taxaw ci ahmad Bamba ak murid bi nga xamni mo taxaw ci Serigne Touba mi nga xamni muy ciy mooy daam yaa ngi may dégg ñoom ñaar léeg-léeg seen débat day day contradictoire ndax ki taxaw ci Ahmadou Bamba lii la lay wax waaye ki taxaw ci daam ak ciy kenn du moom suñu yaakaar yi teg ëllëg borom jaam ni réew mi Bamba ko moom ak meneen réew kooku moom du la wax loolu kooku moom danaan la sëriñ tubaa dani tursi anil mawti baqaullaahi abqaali yallaahu li wajhillaahi sëriñ tubaa nee na li dox sama diggante digganteeg faatu gi ñëpp di def ñu ne ko lan la mbàkke mu ne mooy baqa ullaahi sax gi fi yàlla sax moo ma fi bay abaxaali allaahu li wajhillaahi su ngeen xëyee ñu tàgg yàlla tàgg nañ ma feeg yàllaa ngi fi ahmadoo ngi fi ki gëm daam ak cëy moom du la wax mukk wakkun nasiir yi anis yi danaan la wakkun nasiir yi anis yi loolu wet la wàccuwaay la jawaanib la ci jawaanib yi la bokk ci dimension yi la bokk waaye am na beneen dimension bu ko kaw man falaane nga ni ko foofooy fan mu naan la foofooy kafaaniyal baaxil mamaata sarmadan wa bi baqaa iya yasurru ahmada du ma dee faw bu ñëpp dee man ahmadu fi lay des nga naan kon lay ahmadu bokkul ak la ñu yóbbu ca penku jumaa ja mu ne la déedéet lay ahmadu du loolu lay ahmadu xablal xalxi la moo jiitu mbindee fi ajjaaban yi rahmaanu xablal xalxi sabaxiina alfa sanatin bil xaq waaw léegi sëñ dama naan la jaamu naa yàlla juróom-ñaar fukki junni at wala ñetti téeméeri junni at te sàkk gunu aadama wala yow ma abdullahi ba tey maa ngi wéy di jaamu yàlla nee na bi ma jaamoo yàlla ñetti téeméeri junni at suñu borom daa kontaan ba teg ma ci njowaan di ma di ma joobe ak di ma décorer juróom ñaar fukki junni at te booba waxuma la aadama waaye xalima gi yàlla bind mbindee fi sax amagul waa léegi murit bi gëm Ahmadou Bamba ak murit bi ko gëmee ci daam ak ceyi ñoom ñaar su maanu amul seen diggante ñu xam ni Serigne Touba ay dimension la il ne faut jamais parler le même langage te ñoo bokk ki ñu gëm léegi-léeg ñaari mu nit dinañ waxtaan nga dégg ko ci internet bi ay ree lay jàpp ñoom ñaar ñëpp wax dëgg ñoom ñaar ñëpp wax dëgg bari na sax ñoo xam ne bokkuñu ci yoon wi ci yoonu murit duñ ay murit léeg-léeg bu ñu la déggee ngay wax ci sëriñ Touba ci benn dimension dañ lay indil yeneen waxam ci beneen dimension ne laa ah, Serigne Touba ma waxul lii lii nga koy waxal daal waxu ko yow mi naan moom nga yaakaar te ëllëg moom dégg nga ko wakun nasiri lay wax ak anisi xiinama dafa nu mom day ñaan yalla dimbali ko ci bir bammel yow nga ni mom nga yaakaar ci bir bammel kon gañ xolaat leen li ngeen gëm bàyyi leen sëñ tuba bi ngeen ni créer ay wax fekk ay la yëwan daama ko wax waye bo jangé wa dal lan fa xede ak ma dal sahibukum wa ma xawa lol dula jaxal yalla ci bopam mo ñëk wax ak yonent bi ci ñaari dimension yu bokul moy dimension Muhammad al insaniya ibnu Abdullah mi nit ak dimension Muhammadun ah, nuurullaahi mi nga xam ni mooy leeruk yàlla bi dul juum Muhammad mii juum ak bi dul juum kon wàccuwaay yi moo bokkul donc c'est un sujet d'actualité te boo ko xàmmeegul nag muy wet yooyu mën ngaa réer ci mbindum Serigne Touba waaw te nag foo ko mën a jàpp jariñoo kon ma ñëw ci Ahmadou Bamba mooy facette bu njëkk bi Ahmadou Bamba moomu moo judd ak sàngam faatu at sàngam <coughs> am na murit bu ko fa gëmee pire nag gëm ku bax gëm ku mën jang alquran alxuraan daaray maam Mor Sali jam doon jànge dem na ba bind ay téré yu ñu jàngale ci bir daara ja gëm ni taxawal def qiyamul layli jurum benni at ba mu ko amé sunu mam soxna jaara di wax ni gaay yu bax ya ak ñi bëgg am ci yalla dara dañ dañ daan dañ du nelaw guddi gep dañuy taxaw dañuy taxaw guddi mu tambalé jug di taxaw ba guddi gi xaj wala ba guddi gi sori mu delluwaat ca yitte ya kooku mooy Ahmadou Bamba kooku mooy Abdullahi Zahrali kawniya Abdullahi xillan lahu waxit ban li wajhillaahi mooy jaamub yàlla bi kooku moo naan la xaabat maqaami an siwal baaxil karimi waaye wa inna abdun door caa teg xaddiimun laa yariim kooku mooy ki nga xam moy wax ni kep kuma ma njortal leneen lu dul abdullahi jaam buy jaamu yàlla sëñ Tuubaa nga ma xam moy wax ak yow ci dimension doomu adama pire koku moy wax yalla ni nang ma yeureum ci bir bammel yow rek la yakar yalla nang ma jéggal moy wax ak yalla ci dimension jam bo xamni wax deug yalla mën assurer wul bopam bay assurer kenn kokoy Ahmadou Bamba Ahmadou Bamba mo bind sindidi mooy tagg yàlla bind ko ngir mbindeef fii dimension la ci sëriñ Touba boo xam ne ku ko fa gëmee mu doy la tey ak ëllëg moom Serigne Touba Ahmadou Bamba Abdullahi waaye am na jeneen wetam joo xam ni ñu ngi koy wax Serigne Touba wala boog borom Touba <coughs> waaw tur ci turam yi am na Ahmadou Bamba am na borom Touba am na Ahmadou wetam gu ñuy tudde Ahmadou waaye am na wetam go xamante mom, mom, mom mom min ayatillahi rek mooy kiman la ci kiimaanu yàlla yi mooy wetam goog nga xam ni mooy cëyi rek ngay wax wetam goog nga xam ni ku mel ni sen Mbay sar fa wetam goog nga xam ni moo tax ña ko daan tagg ko nuru nga aw nuru yonen wa aw doxin yaa ngi dégg ak yàlla nga ji nuru nit wetam gogu moo tax nga dégg ku naan ku naan ko ki nit doom jamel ni nit te du nit nañ ko top ñun ñi di nit wetam gogu motax tax ñenn ci mag ñi lamb ko ba daj ko japp def ko muy seen borom ki len mom tay ak motax ñu nan ko sunu yaakaar tay tey ak ak ahmadu borom jaam ñi amna ñum fa wone bopam nak señ tuba mom amna ñum mu wane bopam ci melokan wo xamni ñom xamna ni da mi bokkut ak ñi fi daan jaar te du adam du nit señ abla neena wetam gogu soko fa ma sa na fek ñëw wax ak mom danaan la xaaral ma laaj ko sama borom du wëlbatiku du geesu ne diir ak diir mu ne la laaj naa ko ko nee na ba tey ba tey wetam googu moo la daan ànd ak ba yàgg xëy na la diw nga ne ko mbàkke mu ne ko mu ne la bis ni tey sa borom gërëm na la am nga ngërëmul yàlla am nga ngërëmal yonent bi te am nga sama ngërëm nga génn mbooloo topp la mu wóor la ni yow ma nga doonoon ak yow mi nga doon nii bokkul boo santee géy keroog boo delloo sa kër baay mi la def mi tax nga sant géy say baay ak say moroom yi bàyyi ak say doomi bàyyi ak say doomi ndey yéen ñëpp ngeen bokk sant gi nga yéen yëpp maase di wuyoo sa géy wetam googu moo daan fekk ku doonu dara mu jël ci yow def la ngay dara ba ku bëggati dara ñëw ci yow nga defal ko dara wetam googu nga xam ne nee na yàlla dama faa ber ilaya xaadal daaku bi daari ni nay lan bi say yaran yi daaree ni am na wet gum fa jëflanteeg ay nit kon wet gu njëkk gi kon Ahmadou Bamba murit bi ko gëmee foofu am na keneen ku ko gëmee nag ci borom Touba. Tous les mourites ne parlent pas le même langage. Serine Touba, c'est l'être multidimensionnel. C'est ce qui a fait de nous des catégories. Mourit bu ne ak fa nga ko gëmee fa ngay waxee ak moom loolu yërmande la te lépp Serigne Touba la ko wax am na ku ko gëmee ci borom Touba borom Touba mooy lan mooy ki yàlla jox leeru Touba. Serigne Touba bu wàccoon ci dans bindagul jës boog mu xay mu demagul ci géej gi seexalul wàcc rek ne maay borom Touba xëy dellu ba yowmal xiyam am na lu ko kenn dul dab ndax Touba du alali mbindeef àll yàlla Touba yonent bi nee na ak leer la ci biir leeru yàlla Touba leeruk yàlla lay Touba nee na leeruk yàlla nee na leer googi yàlla mi ngi ko njëkk a tawféexal waa ajjana nee na da leen defal da leen a defal garab goo xam ne li aljana yi bari bari bari garab gi moo leen tiim moom la alxuraan di junju dégg nga daraballaahu masalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin ca suratu ibrahima dégg nga mu naan tuuti ukulaha kulla xiinin ma misaal leen kalimatan tayyibatan kaddug laa ilaha illallah nim sakkane ñu ne ko num sakkane mu ne ka shajaratin tayyibatin mi ngi mel ni garab googu nga xam ni daa teey loolu ban garab la mu ne garab googu meññeef yi amul àpp seconde bu ne day meññ ndekete garabu Tuubaa la yàlla junj booba garab googu yonent bi nee na moom la yàlla njëkk a taw féexal mu ëmb ci biiram leeruk Tuubaa moo tax yonent bi ne Tuubaa shajaratun fil janna masiratu ma ati hamin chiabu ahlil jannati taxruju min akmamiha Tuubaa est un arbre du paradis son étendue équivaut à une marche de cent ans Tuubaa garab la gu nekk al aljanna keroog garabu Touba rek doxu téeméeri at la te du jeex aljana yi li muy li muy bari bari aljana joo ci dem ker ga tiim mooy keroog garabu Touba reen yaa nga jàpp ca kaw branche yi di wàcc di keral waa al aljana ak aljana yi bu ne mu fël fël jàll ba aljana yi jeex yonent bi nee na garab gi yéeme na mu mel ni dañ ko laaj lu tax mu yéeme mu ne li tax mu yéeme nag mooy xarashaha allahu bi yadihi yàlla ngi jëmbat garab googu bi yadihi ci ay loxoom te waxoon naa la ni la yàlla lu mu def ci ay loxo boppam rek lu mu def kiimaan la waaye lu mu defee ci ay loxo boppam moo ci raw ndax mbindeef yi li ñuy bari bari ñoom ñëpp yàlla mi ngi leen bind ci kun fa yëkkun ba mu des ñett bi ci njëkk mooy lëhul maxfuus yàlla nga ko bind ci ay loxoom ñaareel ba mooy seydina aadama muy nit yàlla nga ko bind ci ay loxoom boobu sax ñëw na ba yaanan ci alxuraan ma manahaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min al halin yow iblis lo tere sujjootal ki nga xamni non seulement mako bind waye bi yadayya nak ci samay loxo bop te loxo yalla nak bu don yalla nit la da nga nan da fan ay loxom de nga mu nan euh, <clears throat> bi yadikal bi yadikal bi yadika ci sama loxo yi al khairu, nee Khair khairu yi ci la nek muy yi nga suñ borom subhanallazi asra subhanallazi dégg nga mu naan innama in dégg nga mu naan iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fa yakun waaye fa subhanallazi bi yadihi malakutu kulli shay'in nee na nguur nguurug lu mu mën a doon lu ne maa ngi ko téye bi yadihi ci sama loxo yi kon yàlla bu doon nit la dañ naan ku fan ay loxoom la be nga yadullahi fawqa aydihim motax lum defé ci ay loxom ki man la ñaarel ba moy nit ñettel ba moy shajaratu tuba yalla yàlla ko jëmbat ci ay loxo bopam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo nu ko wax neena bimu ko defé ba paré wa nafakha fi min ruhi neena da euf nak ak leer ci ci ci garab gi looloo tax garab ga bu yalla bëgge soppi ñëluk wa aljana yalla koy soppé ci garabu meññeefu garabu tuba waaye su yàlla bëggee waa aljana sañse dëgg mu ngi leen di sañsee sañseele ci xobi garabi Touba kon garab googu yéeme leer gi yàlla def ci garab gee tax sëriñ Touba ne leer googu nag mooy Touba googu leer googu lema la ko yàlla taw féexale defal ko ko ci àddinaam si ci dëkkam bii di Touba moo tax mu naan ci biir mat la Matlabul Fawzayni <coughs> euh, wajjahal ilaahi maskani Touba abat misla ismiha bi kairiman xayri man abad na nga def dekk bi di Touba muy misaal turandoowam ba moy Touba ga ca aljana wajhalhu ya rabbi ahabba maskani fi ardina laka walil mahisani sani ko def mom Touba gi ahabba maskani muy dekk bi nga xani mom nga gëna sop yow yalla lol tax lo yalla di feñal ci dekk bu mu sop rek defal nako ko dem na bani wajhal bihi dariya kal madina barakatan wal kahbatal mas'una le yalla soppe makka ba def fa barke sopp madina ba def madinatul munawwara ba def fa barke neena ñaari barke yeb yalla dajale na len defal mako ci sama dekk bi de nga niko Noh fa yalla feñale le sax ndox ba mu bind ko wa fajjar wa fajjar ard wa larda Huyunan nan jël aaya boobu tambale ga dadi dadi ko bind khasida nan ko fajjarta yaa rahmaanu xayra nihmati maha salaamatin wa xayri nihmati dégg nga fajjarta yaa rahmaanu yow yàlla bënnal nga nu nag bënnal nga ma nag bët ndox nag ngën gi ndox nag ak dumma fu aada charibin minha ila af idati lazina faazu bil ila bënnal nga ma fi sax ndox moo xam ne muy maaw rahmati day tàppe ay xol da koy leeral waaye ku ko naan nga defal ko ngën gi texe afidati lazina faazu bil ula ci ak kawe nag ngën gi texe nga koy defal ya ngi dégg de lolou motax suñ borom ci turam yi moom daam mu tudd borom tuba suñu yakari tek teeg ëllëg dégg nga Serigne Saliou sax xam gi xam lolou tay Serigne tuba motax mu ne serigne Béthio defna fo nekati yow moy tuba moy dem na ba xam ni ndekete lolou ak leer la lolou ki man da wone wat ni Serigne Saliou moy Serigne tuba waye serigne Béthio lako tawfiixale légui nak kon am na ci wetam yi kon boroom tubaa waaye am na wetam goo xam ne xaddim rasul la am na murit boo xam ne sëñ tubaa rek la gëm waaye xaddim rasul nag la gëm loo ko wax ci xaddim rasul loolu la téye waaye lu féete ko xaddim rasul moom moom jàngewu fa sëriñ tubaa jii mu ko faa xame gëm na nag koo xam ne càppaacoli lay doon ndax sëñ tubaa rek kay xaddim rasul grade boobu moom yàlla moom la ko takkal de nee na bi maa wanaa am mislihi kullu xaddim nee na sama liggéey bii ma liggéeyal yonent mi dootoo leen ndox ba gis liggéey bu nuroog moom ñu ne lu tax mu ne mu ne parce que yàllaa dajale ñëpp allamahum bi anna nii abdun xaddim moo dajale mbooleem yonent wàllu yi yëpp ak boroom xam yi yëpp ak nitu yàlla yëpp xamal leen ni man mii may xaddimu rasul tudde ma ko nag sàmmayta nii xatan bi habdikal xaddim yaa man yaquudu lii bushaaraatun tadduum yow yàlla yow mi nga xam ne yaa ma بشاراتين تدو ميك مدول ميك مدول دك ميك مسح دك يا من يقود لي يومي ما وام مثل ميك مو خمني ميك مسح لا يو تي سبب يا متدي خديم الرسول علمني الرحمن في السفينة بأنني خديم زل مدينة كن من ظنني غير خديم المصطفى فإنني أقدمه بمصطفى خديم رسولك موتاج أدينا موم نخدم رسول رسول moo génn noonu yaa ko génne nii gi màkke baari sa ndar ma sa naan ko ndar ngay jaari mu jaari ndar ndar di mel ni daaru ñu far ko jallax moo wéy ndakaaru xaddim rasul moo julli ci géej gi ku dul moom julli ci sëñ tubaa ngi ci jullee ci maqaama xaddim <laughs> moo daje gaynde ga ca ndar gaynde ga sukk ci kanamam def ni muus di def ci kanamu borom def ni am xar di def ci kanamu sa sàmm ba borom boromam xaddimu rasul moo bind asiru woo Amad Ndiaye maa béy ne ko fekk boobu Amad Ndiaye maa béy ma ngi ko doon bëgg ñaanal intervention ndax xam na ni tubaab bi kum ma sa jàmmaar loolu duma na la daan na la xelam dem ci sëñ tubaab mii sëñ tubaab woo ko ba mu ñëw ne ko Amadou mu ne ko mu ne ko Mbàkke mu ne ko fii ak may dem mu ne ko waa mu ne ko doo fi feebar te doo fi dee xaddim rasul moo ko ko garantil xaddim rasul rek day garanti ñàkk feebar ak ñàkk a dee moo la nañ ko ber daan ne ko fii ak may dem doo feebar doo dee te asiiru gii xasida gii jàngal bi mu jàng ko mu ne ko mooy doon sama seere sama digg ak yow xaddimu rasul moo dem moo dellu si waaye xaddimu rasul moo julli ci géej gi julleem gure yi gëm fa julli xaddimu rasul la yàlla teg ay épreuve yonent ay nattu yu yonent kon xaddimu rasul du ay caaxaan de te nattu yu yonent ku dul yonent attunu ko xaddimu rasul la ko yàlla teg mu attan lépp mënoon naa cee guddal waaye xam ngeen ni kon Serigne Touba am na ci wetam yi wet gu ñuy woowee xaddimu rasul xaddimu rasul rek tem la am na murit bu ko gëmee foofu gëm na càppaacooli nag gëm na koo xam ne jaar na ci géej te géej nag ku fa mës a jaar yàlla defal la épreuve ci géej xam nga ni géej moom ah cuune du ko song Serigne Touba 285 épreuve la am épreuve bu nekk épreuve yonent la 285 épreuve de nature prophétique à l'égard de Serigne Touba. nattu géej boo bëggee xam nu mu tool laaj ko nooyin moom keroog bi mu ne rabbi laa tasala la lar di na kaafiriina dayyaara ba yàlla ne ko was na il fulka bi ahyuninaa wa naa ba nooyin yett gaal gi ba ci gaal gi ba ga départ ñëpp bég waaye ba ndox ma tàmbali yëkkati gaal gi ak di ko tegaat asamaan si di ballu ndox suuf si goqi ndox gaal gi am problème mu accosté ah nooy nag waa ay gaayam tiit nañu xam nañ ne ndox nag épreuve nattu la boo xam ne du nattu cuune déggal alhamdulillahi allazi najjana min alqawmi zalimin rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta xayru munzilin di ñaan rek ba keroog bisub tam xarit yàlla jël doj bu ñuy wax juudi yu gaal ga fa la accosté mooy batub nooyin ba keroog sax bég na mbik moo xam ne da doon sant yàlla woor na ñetti fan santee ko yàlla loola waral zurriyata man xamal naa maha nuuhin innahu kaana habdan shakura waaye eh géej du caaxaan de keroog ba yunus duggee ci biir bato ba ba ñu jàpp ko ba sànni ko ci biti ndax bato bi da doon waaja suux ñu ne faaw ñu wàññi poids bi ñu xool ku ñuy wàññi tiire mu dal ci ci yunus ñu jël ko sànni ko yàlla yónni jën ma ne ko wannal ma ko bu ko lekk yow wannal rek ci biir géej ga wasan nuuni izdahaba muadiban fa zanna an la naqdira alayhi fa naadee fi zulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min azalimin yunus xam na luy géej keroog da noonu yàlla nekk fa naan ko ci gaa yi ma yónni nekk fa naan ko gaa yi ma bàyyi ginnaaw te ab yonent la kat waaye naan ko yàlla sans bopp laatal maa ngi seere ni amul benn buur bu dul yow inni naka man nag yunus kuntum laa ilaha illa anta subhanaka sabbal naa sa màgg gi maa ngi seere ni indi kuntu mina zalimin ci gaay ci tooñkat yi laa bokk yàlla dimbali ma ba keroog bisub tamxarit jën wa goqi ko ca tefes ga moom it muy sant yàlla mu julli tàkkusaan daal di koy sant yàlla nooy moo njëkk a julli tàkkusaan ci kaw suuf keroog la la sant yàlla nag ci lan ci yàlla dimbali gim ko dimbali ngir lan goqi gam ko goqi yàlla ne ko sa tàkkusaan ji dencal naa ko yonent bi ak xeetam muy ak cant moo tax xeetu julli yi sax ak cant la ak cant kon giit kon lu wir la sidna musa kero bam jaxal lu géej gi firawna diko di kodak. ne man yalla numay def yalla ne ko sayat bi wi mu dóor yat wi yat wi wat ko ko mu dóoraat yat wi delo ko mu ne yalla numay def gay nan ko dinañ ñu japp mu na inna maxi rabbi yalla an nak man fatte na sa gay gaay yi àndal waaye dama koy firé man yawma naddu kullu unasin bi imamihim boba ci bir mom gayam yaangi ci mota yi su ne yàlla ànd na ak man waxaale na ni yàlla ànd na ak yéen ndax képp ko ku ànd ak Moussa rek kon bu boobaa yàlla ànd na ak yow yonent bi nag moom daa dese woon sago moo tax dani inna allaha maana <laughs> yàlla ni ko jullil ci yonent bi mu julli ci yonent bi yàlla ni ko dóoral yat wi ci géej gi mu dóor yat wi ci géej gi fan falaxat fa kaana kullu firixin katabdil azim géej ga xaaj douze voies juróom ñaari fukki yoon ak ñaar ndax Moussa daa àndoon na fukki ngir ak ñaar te yàlla buggul mu am embouteillage ndax comme dañuy daw di bëgg a raw kuy daw te bëgg a raw voie libre moo lay arrangé moo tax péage ngay jaar yàlla xol xàllil leen douze autoroutes te kenn du fay ñu xàll ci jaar après mu tëj kon géej bi ay caaxaan daam nag bi mu tollee ci géej gii daa sànni der wi moom daa di yor tànk bi wàcc ci bëtub bi wàcc ci ndox mi daa di julli ñeenti rakkaam waxtu tisbaar la wax nañ ni julli na fa tisbaar ak takkusaan bu defee ñaar defaat ñaar waaye ngi lay woon sëñ sago la jullee ci géej gi sago mooy der wi mu doon jullee sëñ bi da koo lemaat ba mu dofet ànd ak moom ci biir gi ba tamit man julli gi sax yéem na ma waaye Xaadimu Rasuul am na mat gu toll ni ak sago gu toll ni bi mu jullee ba noppi daa lemaat der bi sëñ daam Abdourahman loo la ko jox derbi fim tol dikale na yéegaat na ci yét bata bi julli gi yéeme na nak waye no def ba jilat sab der ngabat sab der motax tax rasul kenn mom amna mourid bu ko geme fof gëm na ko bax waye gëm na ko xamni amul morom tay ak ëllëg waye e amna mourid bo xamni takale wal tàqalewul rasul ak rasulullah sallallahu alaihi wasallam te kat seigne tubaay wax ak yow ci dimension bobu de do ko deg leg leg mu nan la wa inni ahmadu je suis la lumière mohammedienne leer gi tax yonent bi di yonent bi nga xam ne leer googoo tax Moustapha du faatu nga ni ko waa mu ne man mii maa ko doon leer googa maa ko doon arfin bi arfin waaw murit bi ko gëme foofu ci lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xaraa wa inni ahmadu murit bi ko gëme ci nasaafatuhu kulli min allahi taharat wa sunnatahu sunnatahu insha arabi ubayanu nga xam ni sëriñ bi naan la wax ji gën a rëy mooy inni ahmadu maa donn yonent bi maay leeram mooy wax ji gën a rëy waaye man mii la maa ko donn foofu la sëriñ Tuubaa di waxe ni sayyaranillaahu fawxa jamihil anbiya wal mursalin sëriñ Tuubaa fay waxe de déglul de diggante ki doon wax xaddimu rasul moo xëy ne la tey nag maa ngi waxe ci làmmiñu yonent bi ci maqaamam ahmadiya lay waxe làmmiñ bi may waxe moy làmmiñu yonent bi lépp lu yàlla mayon yonent bi dama koy wax askanale ko sama bop so xamul ni maa ngi wax ci maqamam ci halamam ci maqamam ak ci dimension am mel na ni dootoo dégg sama wax ji ndax bo diggi wax ji da nga nan kon fumay def yonent bi kataballaahu tabaraka wa taala anna katiba hazihi al-ghurufi sayyarani llaahu fawqa jamihi anbiya wal mursalina firil ma lolou yàlla ni seigne touba ni yàlla dogal na ki bind araf yi ngay jàng sa sayyaran yi jiital na ko ku ko jiital sayyaran yi jiital na ma ku la jiital mu ne allahu yàlla waa ci kanamu ñan wàllu yi mu ne déedéet fawxa jamihil anbiya cent vingt quatre mille prophètes yépp yàlla jiital na ma seen kanam nga ni ko xanaa ñooñ dong na mu ne lu déedéet wal mursalina ak ñim jot a yónni sa xel day dem ci yonent bi fekk boobu yëgu ni Serigne Touba miy wax wuutewul ak yonent bi am na murit bu ko gëmee foofu nag kon mourid bi ko gëmé ci Ahmadou Bamba ak ci borom Touba ak ci khadim rasoul buñu manoul maanuwul te xam Serigne Touba da yaatu do bok ak mourid bi ko gëmé ci ahmadia bokulen leen waral leg leg nga gis am murit buy diingat am mourid ci waxtaane serigne Touba diwan diiwaankat yi les kenn liste de Cheikh Ahmadou Bamba ñi nga xamni may rek lañuy wax déedéet Serigne Touba mo yaatu à l'instar du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam Serigne Touba c'est l'être multidimensionnel moo tax Cheikh Ibrahima ne la bul juum si ndax fam tag sa guy rek la ca xam dangay ngay sóobu sa morom sóobu géej rek nga sóoboo tefes gi kii sooboo tefes gee tefes gii dal tefes gii di yëngu kii naan la géej gi daa yëngu kii naan la déedéet géej gi yënguwul dafa dal géej gee yëngu fii dal fale te lépp di géej gi <laughs> Serigne Touba ngoog moo raw sax loolu moom Serigne Touba moo tax kenn ku ne ak fa nga ca doge yoon wi. kon wetuk ahmadiya jox naa la ci benn am fu naan wajjaxal xuruufi wala wajjaxal kitaabati ka kulla mursalin boo dajalee yonent yëpp seen jëf yeek seen maqaama yi moog sama benn araf laa la wax noo tolloo wajjaxal kitaabati ka kulla mursali mboolem ñi mu yónni fa ndekete boobu Serigne baa ngi waxee ci maqaamam yonent bi ndax maqaamam yonent bi la yonent yëpp amee maqaama moo tax Serigne Touba boo xàmmeewul wetam yi mënoo koo waxtaane man mi maa la ko wax man alaaj Boubacar c'est l'être multidimensionnel dana waxe ci dimension Abdoulaye simple jaamu yàlla boo xam ne ajjanaam sax leerul naan yàlla wakun nasir yi ani fii xiinama dafa nu léeg-léeg mu waxee ci dimension boo xam ni xaddimu rasul rek ka fa mën a waxee léeg-léeg waxee ci dimension boo xam ni ku dul yonent bi amoo maqaamay waxe fa déglul kulliyat yi mu'jizatun ta'aqqarat wa xayri xayraatin la dayka du xirat ab yeneen sax léppam du mu'jiza sëñ Tuubaa nee na man nag sama lépp mu'jiza la damay bañ waxtaan wi gudd waaye kon ñu taxaw ci luy mu'jiza kon ñu taxaw bu baax ci luy mu'jiza kon li ma la bëgg a wax mooy kon ndekete c'est l'être multidimensionnel et eh, waxtaan wi dana fi gën a yaatu de waaye kon gis nga ni am na jaw am na ci jawaani bi ci ci ci dimension yi dimension ahmadiya waaye am na beneen dimension mooy daam nag muy ci mooy gis nga dimension bu mujj bii nga xam ni ku mel ni Cheikh Ibra Fall moom sëñ bi da ko cee woon boppam gaañi sëñ Touba ci sëriñ Touba boo gisee werante bi bari ci moom nga gis nit ku génn uniquement naan sëñ Touba du yonent bi sëñ Touba du yàlla mooy dem na ba sëñ bi jaaxal na ko xamul lu mu doon ndax sëriñ moom dana la wax ci ay waxam loo xam ne moom mbindeef moom mënu ko mbindeef it xamu ko mbindeef du ko gàddul moroomu mbindeefam te mbindeef sañu koo wax waaye déggal tur si anil mawti nga ni waa mu ne la baqaaullaahi abxaa liyallaahu li wajhillaahi man daal du ma dee nga ni ko lu tax doo faatu lu dox sa digganteeg dee xanaa dangaa ngaa sax fii yàlla sax fee mu ne déedéet dam ma xayaat yi li xayaatillaahi sama dund gii moo jaxasoog dunduk yàlla gi ba tax na tur si anil mawti baqaaullaahi li dox sama digganteeg dee mooy sax gi fi yàlla sax moo ko bind da nga koo mën a wedd yow kay boo ko mënta leeral ci alxuraan ak sunna it dalul rek waaye mënoo ko weddi moom mënoo ko weddi bu waxtaan wi doon yaatu it ñu gën ci xuus yàlla kenn du moom du kenn it nag waaye day feeñal boppam ci jëmm sunu borom yàlla day feeñal boppam ci mbindéef di fa wane yàllam ji moo ko wax allahu alladi xalaqa sabxa samawaatin wa min al ardi mislahunna yatanazalu al amru baynahunna li ta'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad axaata bi kulli shay'in ilma yàlla nee sama yàlla jii ma doon dama koy feeñal ci mbindeef fii ngeen xam ni maa yàlla yamu ci de hadisul qudsi la yonent yàlla wax ci làmmiñu yonent bi nii am na ci sama jaam ñi kok jëmm ngeen nuroo waaye bokkoo leen dara yéen ñaar wa ma yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawaafili qatta uhibbahu fa iza ahbabtuhu sëñ Tuubaa laa lay bëgg a wax de ci dimension boobu ko Cheikh Ibra Fall tegoon dimension bi ko sëñ Mbay Sarr tegoon dimension bi nga xam ni sëñ Ahmadou jaw Paxa foofu lañ ko tegoon ñoom dimension boobu nga xam ni ñoom suñu yaakaar yi teeg ëllëg la ñuy wax daam ki ni att teeg ëllëg borom mbindee fi borom jaam ñi foofu lañ ko teg moom dimension boobu nag laa la ni du bokkaale de yàlla mi moom ñépp mooy feeñal ay cëram ci moom mooy tajal tajalliyaat subhaana man liya tajallaa fii safar sanata jëy sasin waqitu za safar sëñ Tuubaa nee na ci weeru wii di xeeñ muy safar ca yàlla nag defee tajalliyaat ci man di feeñal yàllaam gi ci man moo tax sëriñ Tuubaa mooy màndarga mi gën a leer mi wane ni yàlla yàlla foofu nag bu fa sëñ Tuubaa di waxee ci maqaamam mi nga xam ne yàlla dafa def tajalliyaat ci moom da foog ni bokkaale déedéet yàlla lay wax waaye yàllaa ngi jëfe jëf ji ci moom te loolu alxuraan la e eh, suñ borom nee na jargoñ mënta aar kenn wa inna awhanal buyuta la baytul xankabutin néeg bi gën a am insécurité mooy néegu jargoñ mënta làq kenn waaye yàlla mu ngi làqee yonent bi ak Ababacar ci néegu jargoñ kon du jargoñ bi waaye yàlla waaye yàlla nga ko defee ci jargoñ bi Seydina Isa day dekkal néew te dekkal néew ku dul yàlla mënu ko Isa moo ko dekkal waaye yàllaa ko dekkal te mi ngi ko dekkale ci Isa wa wa is taxruju mina tiini ka hay'ati tayri bi izni wa is tuxrijul waaye bi izni ci sama ndigal kon yàllaa ko def mi ngi ko defee ci Isa <laughs> Seydina Moussa safara si daa yàlla daa def tajal leer ci safara si Moussa gis safara si ne xaaral ma dem wuti safara yàlla ne ko du safara si man la yàlla te safara say wax ak moom. waaye yàllaay wax ak moom yonent bi nee na ca addisul qudsi ba te yàlla wax ko nee na jaam boobu nag day dem ba sun borom nee na yataqarrabu ilayya bin nawafili xatta uhibbahu man yàlla dama koy sopp fa ida ahbabtuhu su ma ko soppee kuntu samhahu lazi maay doon ak déggam day desay nopp ni yow waaye dégguk yàlla gi lay yor moo tax Serigne Touba daan toog fa muy toog da digg di digg la muy dégg eh, wa basarahu allazi yabsuru bihi nee na ak xool lay nuruk yow waaye sama gis gi laa koy jox sama gis gi laa koy jox wa yadahu lati yàlla nee na day nuruk yow ay yoxo waaye sama loxo yi laa koy jox loolu yax bi alxuraan la yadullahi fawqa aydihim gars yi dañoo nuyu yonent bi daal di jàll muy udaybiya ñu pare yàlla ne leen ku ngeen nuyu ñu ne ko yonent bi mu ne loxo bi tegu woon seen kaw ban loxo la ñu ne ko loxo yonent bi mu ne yadullaahi loxo yàllaa te ñëpp seere nañ ne loxo yonent bi lañ jàpp ndeke booba yàlla def tajalliyat ci yonent bi mooy kuutaay lu yàlla ci ko suuf bañ ko nuyoo lañu nuyu yàlla moo tax aay boobu dafa bokk ci aay yi gën a bari coow xolamaaw sariha niñ koy fire ak waa ulta sax niñ koy fire bokkul kon bokkaale ak boole yu bokk bu leen ko jaawale bokkaale wunu sëriñ bi dañoo boole yu bokk yàllaay feeñal boppam ci moom lolo tax leg leg muy wax ak yow makam mo xamni bo noppé dal da nga nan ki la yakar tey ak euleuk mo gën ci man tey te mo gën ci man euleuk lolo tax Cheikh ibrahim assar ak euh, euh, sëñ ma numbi mbacké seigne touba dem ci geej gi ñu bay ba ba mbay mi jeex nu nu jaay ko am ci xéewal yeen ci am dal ni seigne touba la jox addiya waye comme du nit te fu waay tàllale fu waay jox fu waay fu ko waay tàllale mu nangu ca yoxoom ya ñu dem ba fii boori Rufisque diggante Rufisque ak Bargny ñu takk xéewali koppar yi ba mu dëgër teg ko ci géej gi ne ko sa addiya ñu toog ak diir sëriñ tubaab bindub lettre julli ci yonent bi sant yàlla julli ci yonent bi daan ne bii nag min Ahmad Bamba ila Ahmadu Nume Mbacke wa Ibrahima Sarr Njaaj wa Seex Ibrahima Sarr ci géej gi lañ taxaw takk koppar yi teg ko ci géej gi ne ko yow lañ ko jox yow daam sëñ Tuubaa nekk ca tukki ba nangu addiye ji ba noppi ne leen addiye ji am ngeen ci mbégum yàlla ak yonentam waaye am ngeen ci sama mbég kooku du ñii sëñ Tuubaa looloo tax tous les mourides ne parlent pas le même langage fa ko Cheikh Ibra xame sëñ Mbay Saar xame ko fa ñenn ci waykatam yi ñoom sëñ Mbay Jaxate ñoom ñoom sëñ Musaa Ka ñoom xame ko fa ba di ko jiiñ kooka ak fi nga ko xamee yow Serigne Touba mi jur mu jur xey gane adina xey fatou di ñaan yalla lënd may bammel na ci muccu ñaari Serigne Touba yooyu bokkunu waye ay jawaanib la ay dimension la ces dimensions qui sont multiples ont fait de ses disciples des catégories c'est pourquoi tous les mourides ne parlent pas le même langage et chacun de nous a une part de vérité la vérité relative la vérité absolue nak moy maqama mi nga xamni ni kenn kéman la ci kéman yalla yi loolu dal li ci am solo moy fo ca yam ak fo ca xamé na la doy seuk te bul weddi sa morom c'est vrai na guuy la guuy nak si ndax fam ca tak fofu rek la ca xam kon loolu moy nek bind nak bi nga xamni moy nek introduction nak ci magal gi ngir insha allah rabbi alxamis ak jam buñ ca tollé nga xamni ni su boba nak ah dañu daal dugg nak ci programme safar bi nak insha allah rabbi dencal nañ leen ci nag ay waxtaan yoo xam ni yu ko mata la ci Ahmadou li tax bis bu set ñu mën cee indi bind mooy sëriñ bi moo yaatu di kéemaanu yàlla foofa lay waxee ci xablal xalxi laata benn mbindeef loolu tax mbokk mbokk jullit yi ak mbokki taalibe yi sunu sëriñ tubaa mii nu yàlla defal chaque jour nañuy jéem a dolli ko xam ci moom te kenn ku ne loo xam ci moom na ko fexee jëfe sa kem kattan fexe caa jariñu koo koy Ahmadou kon nag maa ngi nuyu bu baax soxna da saliw Konaté sama mom mang koy bëggee lu bare bare bari waye di bëggee mbolé mag ak mi ak yi di bëggee bu baax señ Modou mbacké jaw di seut ci señ malum jaw señ malum jaw señ Mansour jaw ak señ Ahmadou jaw Paxa ñom ñett ñoo ñi ñoo bokk jaweetu xamantana nu bu baaxa baax kon nak maa ngi mbokk yépp di wàcce fofu sama kaddu di bëggee mbooleem jotaayu xam-xam soxna su saar mi ngi top jotaay bi ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko bigee waaye ajaratu Fatou suñu yaay ju baax jooju nga xam ne barki démb la jógee màkkatal mu karam ñoo ngi koy nuyu bu baax moom itam ñoo ngi koy bégee euh, di wax le docteur Cheikh Dieng mi nga xam ne barki démb démb la ñu dégg euh, foofu mu nekkoon ci ONAS te nañ ko ca bopp ba te waxaguñu sax les raisons ndax dégg naa sax raisons yi bàkku na ca mooy coow yu am ci digg seen diggante waaye nag xam ni loolu c'est pas suffisant xëy na la cause causante waxaguñu ko waaye askan wi nag soxla na ko ndax bu société yu am coow rek fi mu société yu bari yo xam ne tabb nañ fa ay DG seeni nit ñi ngay génn di dénoncer yu baree bari am na ci boo xam ne rek maa koy dégg ci actualité muy caisse de sécurité am na ci seen président délégué la xaw ma dañu ko def mise à pied pour sept ou huit jours ngir lan day dénoncer gouverne xeetu gouvernance ba fa nekk ak anomalie ya fa nekk kon bu dee coow rek mel na ni société yam coow bëri na kon nag loolu bu dalee ci kawam moom it du ñu def lu dul masawu ko waaye xam ne le meilleur reste à kon nag wax jàngi noonu sunu mbokk moomu di suñu xarit mooy docteur Cheikh Dieng nga xam ne dafa ànd ak positif euh, bari xam-xam euh, liggéey yi euh, ba booba ñu tabb ko ci bopp ONAS waaye boobaak léegi mel na ni réeroo am na ci ñu yëg ko dimb ñoo ngi koy bëggé diko ko masawu te di li xamni le meilleur reste à venir na xam-xamam kenn du ko werante ci réew mi kon nak wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh رمنا Verdade.